fi wa ziar ak mboolem kuréel gi di ndawi Serigne Saliou mel na ni tey ngeen amaat beneen taxawaay ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxaali fekk leen fii nag ci euh, wetu jumaa ji taxawaay beeg lépp lu ci aju loo ñu ciy tënkal bisimilah. auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed di sant Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasul message sax di jaar waat baax a baax waa ndawi Serigne Saliou waaye di jiital si nuyoo beeg sunu buntu muy Cheikh Mouhamadul Mourtala moom Serigne tey nag mu mel ne ñu ñëw fii ci jumaay Touba day dellusiwaat li Serigne Touba waxoon rek Touba mooy sama dëkkuwaay ndax wax dañ koy faral di wax lu bëri waxoon na sëñ Mourou Moussa bu ngeen fexe ba yóbbu ma Touba lu ngeen tàmbali naa ko àggale moo tax Cheikh mun Mountakha lu mu tàmbali rek Serigne Touba dina ko àggale waaye boo gisee ñëw taxawaay fi tamit dégg nañ keroog Cheikh Amadou Mountakha mu wax ko mooy su sañoon chaque àjjuma daf koy woote waaye xat-xataayu jamono waaye yiw rek la ñu ëmbal ndax ku ne xam na ne tey jii booy xool li Serigne Saliou waxoon te jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ña tey moo del siwaat boo xoolee li wër jumaa ñi ci ëpp ay ndaw lan ñu ñëw taxawul Cheikh Amadou Mountakha ci bisu kon sant rek la taxawaay boobu la ndaw yi Serigne Saliou amagul tey fi ngeen daje lan mooy seen dëgg-dëgg activité mel na ni gis nañ fi ay xeeti bernde ak ca ajo waa xeeti euh, activité bi mu fi ñëw mooy ñu ñëw ngir taxaw liggéey bi ku ne xam na ne yoonu murid dafa baaxoo euh, bernde te bu ñu waxee jàng alxuraan baax na jàng xasida baax tudd yàlla tudd yàlla baax na waaye bernde mënu caa ñàkk ba tax bi nu xëyee ci fajar 6 heures du matin la ñu taal ay mbana ngir yóbbul ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi ndax ku ne xam na ne am nañ ab ceet ci bisu xasida bi fi mu toll nii ci kanam tu 10 heures bu ñu ñaanee ñoom dañuy dem yóbbul li ñu am ci ay xéewal ñu barkeeloo ko ñu waat toggaat ngir waa gisu xasida bi incha allahu rabbi yeneen commission yi lu ci mel ni culturel ñoom itam it ñu ngi ci activités yi gisoo boo gisee ni nu booloo wi nii kii mooy moo fi taxaw taxawaayu commission culturelle mooy jëriñ ji boo xoolee ñun ak ñoom dañoo jaxasu ngir indi ñu jàpp ci xidma gi ndax maam Seydou Abdoulaye wax na liggéey ak jaamu yàlla lan war di boole te Cheikh Moussa dafa koy wax lu bëri nee na lépp lu waaye am ci ci yoonu sëñ Bamba bi am naa ko bu yàgg mooy bu dee liggéey dama koy liggéeyal bu dee jàng damay jàng ndax naa ko kon tey jii moom taxawaay boobu lañ ci am fi mu doon nii bu 11h xasida yi bu commencé 10h30 ñoom dañuy toog jàng ay kaamil ak ay xasida ñi nekk si waañ ñëw commencé nekk ci waañ yi ñi nekk zéro degré di seddale yu sedd yi ñi nekk ahlu café di seddale ci sedd yi xam naa waxtu wi dafa xat te liggéey bi yaatu lan ngay soññ mbokki ndawi Serigne saali ak mbokki taalibe yëpp rek ci yeneen ndigal yi nga xam ne nii ñu ngi koy sentu ci Serigne bi incha allahu xanaa fi may soññee rek dama koy wax daara ji lu ci bëri foofu lañ taxawee mooy bi sëriñ bi joxee ndigal li ajuma bee daal dañoo ñëw indi café ak ndox doon waajal bis bi ngir togg lu yaatu and ko ak waa commission bépp nekk ci daara ji waaye di soññaat ñi nga xam ne ñoo féete waa Touba ñu ñu gën a joxaat ñu gën a waggaraat Cheikh Amadou Mountakha ndax yan bi diis na lool te sëriñ bi du noppi di wax ci ndaw ñi nanu jaamu yàlla nanu góorgóorlu ci liggéey bi nga xam ne ne man àjjana joo xam ne lu waay neex ko kon mbokk yi jërë ngeen jëf euh, lii moo doonoon euh, pàcc bu njëkk bi ñeel ndigalul cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ci ñaareelu ajjuma Touba ngeen gis euh, niñ leen ko waxee ci njàlbeen gi noonu ngeen ko seetaane ci biir nataal yi bi juróom-ñetti waxtu jotee rek ci la Baye fal yi tàmbali zikrulaa bi ci teewaayu kilifa yi waaye noonu itam lañ ko gunge ci ay bernde ci ay xeet yu fasantikoo kon niñ ko defee woon keroog rek noonu dong lañ ko defaat te tey ji sax la gën a fawxa ndax gis nañ ne ci la mbooloo mi gën a yokk ni ko Baye Fall yi waxee woon fanaan si nan kuréel si kër yi bàyyi ko fu ne daayira yi ñii ngi defar kafe ñii di defar xéwal yi ci ay bërëb yu fasanti noonu itam la yeneen daayira yi lu ci mel ni ndawi Serigne Saliou noonu ngeen leen gisee am taxawaay bu am solo noonu lañ ko gisee fële ca kër Serigne Saliou ci fondation sopp Serigne saaliw waa Asaba soppey Almouridiya ak mboolem kuréel yi nga xam ne ni daal incha allah danañ gën a yaatal liggéey bi sax ngeen seetaan ko ci deuxième partie bi kon euh, ñaareelu ajjuma zikrula ak Baye Fall yi ci kanam tuuti xam naa ne waxtu bi ñu cërale woon Baye Fall yi dana mat sëkk ñu doora a liggéey bi nag ci jàng xasida ci yëkkati ndax njàngum xasida mi ak njàngum alxuraan mi ci durus moom moog Zikrullah bi ñoo tàmbaleendoo kon ñu ngi ñaan ci barkeb euh, Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te yàgg joxe ndigal kon ñaareelu àjjuma baa ngi noonu murit yi ni ñu ko waxee Baye Fall yi ni ko waxee leen dong la di xaar ndigal lépp lu sëriñ bi joxe ci ndigal rek ci bis yu demee nii ñu daal di koy mën a jëfee kon lii ma doon premier partie bi di ñaan yàgg koo jëfee ci barkeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim rasuul waa ngi ziare ak mbooleem kuréel liggéeyal Bamba seen taxawaay saa su nekk ñu nemmeeku ko ci bis yu demee nii ba ci màggal poroxaan ak bépp ndigal bu sëriñ bi joxe mën ngaa dikkaat ci liggéey bi naka la na soo ak lan la tënkoo. jërëjëf euh, sama sëriñ ñoo ngi leen di ziar baax a baax. kuréelu ahlu liggéeyal Bamba ñoo ànd koog euh, geneen kuréel gu ñuy wax euh, Mouwahiboul Akyaas di liggéeyal sëriñ Touba ci dëkk bi. leen na dafa daje tey ni ko sëñ bi ni ko ni ko sëñ bi jàppee mu doon lu jàmp loo xam ne si bii mooy ñaareelu muy ajjuma bee passé di la sat ak ajjuma tey bii di la 24 ñu dundaloon ko dundul koo xam ñu dundaloon ko noo xam ñu dundal ñu dundaloon ko noo xam ne si yóbbu na kuréel gi foo xam ne si man fooguma ko woon sax ndax kuréel gi fa mu tàmbalee woon xam ne bu ñu ci dellusiwaatee sax xam naa ne dana gën a gudd waaye euh, tey jii nii ma lay jox ab tënk rek ci fi kuréel gi toll dëgg dëgg dëgg dëgg ak mbooloo mi nga xamante ñoo ko ŋànk ànd ko di liggéey yóbbu nañ kuréel gi foo xam ne si wax dëgg yàlla am na ma donte bokk naa ci ndaw yi nga xamante ne ñi ci ñi ko sos la waaye ak ni ma ko tey ak liñ fi jot a indi ci ay xéewal liñ fi jot a euh, séddale ci ay xéewal man def maa yéem ndax fii ñu jàkkaaroon muy résidence Serigne Touba amaana sax euh, léegi nii laa jot ab appel boo xam ne si Hizbut Tarqiyyah la boo xam ne si si seen kuréel gi la nekk nee na moom seen i dana ñëw waaye mën naa man am na nu muy demee muy naaj moo tax nuñ nuñ gën a gaawee ñu gaaw toppatoo leen ndékki ak policiers yi ak ñi nga xam ne ñi ngi ci biir kër Sëñ Abdou Lahad gi Euh, di dundal xaside yi foofu ci sëriñ Amsa Mbàkkam sëriñ Soyibu ak kër sëñ Modou Xabaan euh, sëñ Fallou fa ñuy dundale alxuraan ji ak fële ca penku jumaa ja ba Baye Fall Baye Fall moom bi ñu xëyee yóbbu nañ fa minimum ak café ak seen ndox ak seen ay jus te incha allahu taala noonu lañ ko fas yéene defee bi nga xam ne que sëñ Touba gi dinañ fa dugal ay xéewal que sëñ gi ci sëñ am sam sëñ son bi dinañ fa dugal ay xéewal fële ca barabu ja ca Baye Fall Sikre danañ biir jumaay Touba ji it nag ci euh, yokk bi ak ci biir jumaa ji ak daare kaamil ji foofu fépp dinañ fa dugal ay xéewal ak kër sëñ Mbàkke Madina gële nga xamante ne dafa am ay gan ñu jóge fa sori ñëw dal fa sëñ Cheikh Abdou Latif boole ñoom ñoom ñu fas yéene leen jox ay xéewal waaw loo daal mooy fi nga xamante ne foofu lañ tollee léegi kon daal man nañ ne li ëpp ci liggéey bi fii ci kuréel liggéeyal euh, Bamba ak ñi mu àndal ay bernde la te mu nekk benn ponk itam ci ndigalal sëriñ bi ay berne la nag berne la nag ak it euh, ab dal boo xam ne si tey ñu ngi ko jagleel ne gan ñi nga xamante dañuy ñëw te war a dundal xasida yi te war a dundal alxuraan ji te it leen ko ba bu julli ajuma jotee fi ñu toog nii mën nañ fee sàpp daal di julli nga xam ne incha allahu taala berne yi mi ngi tàmbalee ci kafe ak ay 70 berne mi ngi tàmbalee ci kafe ak ay 70 mi ngi tàmbalee ci ataaya mi ngi dem ci meew bu ñu jógee ci loolu jus yi yéen nii ñu koy commencé sàmbale nga xam day am mbuus gi day am pomme day am orange day am ndox day am nga xam ne yooyu boo añee ba pare sekkeen yi ak njaween yi di leen ko daal di yittewoo lool ak it bu ko defee defar nañaat fee ca waañ wa nga xamante ne fa lañ jëm nii nii nii ca waañ wa euh, ñett nag yoo xam ne si dañ ko préparé pour añ def na ci ay def nañ ci ay foofu daal lañ tollagum te dañ ko fas yéene séddale ba la ñu fay jógee incha itam liggéey bi gis nañ ne ci anam yu sell ba mu mën a neex a jëfandikoo euh, fekk nañ ko fi kon xam naa ne li ci des mooy euh, kàddooy soñ rek tënk bu ko defee ñu mën a yaatal liggéey bi ndax waxtu wi dafa xat te li ci ne ci suñ kanam dafa xaw a bëri incha allah jërëjëf jërëjëf ajuma ji dafa xaw a jege mais comme loolu nga ko wax rek liggéey bi moom dañ cee ku ñu wax Moustapha Niagne dañ cee xar tànk fexe ba sellal ko sell goo xam ne si ak koo mën a doon bu ñu la ko joxee maanaam da nga ci mën a xéewlu ba keroog ajjuma bee passé am na ay sëti sëñ Tuuba am na ay sëti sëñ Muntaxa ak doomi sëñ Muntaxa yoo xam ne si ci lañ xéewlu kon nag ku ne mën na cee xéewlu moo tax set na sell na te it baax na ndax it dëgg ay jumtukaay yu mat sëkk sëkk sëkk lañ ci lañ ci lañ ci lañ koy jëfandikoo pour ñëpp mën cee jëfandikoo comme ajjuma ji dafa xaw a xat amaana bu ñu ajju bu ñu ajjuma ji jàllee